mooy solution bi. Mm-hmm. solution bi mooy surcharge de poids lañ war a tere mais pas surcharge à l'essieu surcharge de poids wax ñu lan mooy différence bi. wax naa la ko sànq ne la surcharge à l'essieu mm-hmm. mooy dañ ne surchargement bi dafa war a équilibré net. côté yépp tolloo maanaam pneu yi bu ko tegee ci bascule bi. liñ tuddee essieu moom ngay gis pneu bu nekk poids bi mu war a teg ñoo war a tolloo xam nga sàng laay mhm. ah? mën na nekk mën na nekk mën na nekk mën na nekk ci chargement à l'essieu bu dee comme Europe seen tali yu jub lépp comprendre ko ñun on a essayé ñu def ñu jël benn camion ñu teg ñu teg pont bascule bi ñuy teg saako di teg ba mu équilibré ñu takk ba mu dëgër au premier doodaan on a constaté que lépp dafa. waaye xaw a jëm côté. Mm. boo eggaat ci beneen point bascule nga kii côté bi féete tali bi nga xam ne mooy. moo gën a diis beneen côté bi. <laughs> non du baax organique. waaw mais mais ci biir problème bi am ci biir port bi. oui bañ ko bañ ko génne yóbbu ba jam ñaar pour le moment. waaw defe naa nañu régler problème bi nekk biir pour ne ah, pas ñu ñu dugg seen en a am problème bi. lii daf cee bokk. Mhm. parce que bu ba tey bu ma ñëwoon ne la 1000 conteneurs. war a génn biir Dubaï déjà Dubaï dama ne la ñun dañ daan def 12 heures de temps bi fa pont bascule amul pour récupérer un conteneur. nga bëgg a peser 1000 conteneurs ci benn pon bascule. mais est ce que 12 heures de temps pour génne conteneur aussi est ce que. bëriwul mën corriger est ce que loolu. si mën nañ ko corriger actuellement ñu ngi ko doon corriger loolu moo tax on avait demandé au DG. que problème yi muy def yëpp. que ñu teg parce que y a des projets. alors Mama euh, tamit des des ingénieurs réagissent disant que surcharge à l'essieu mooy yàq tali yi mais on a en ligne aussi un opérateur économique boo xam ni am na jafe-jafe bu mu dund euh, mu ngi ci ligne bi dinañu expliquer ñu gën a comprendre li waral seen grève bi sëñ bi ñu ngi lay nuyu allo Pierre. Pierre dafa mel ni dafa mel ni euh, dem na bu bu yembee nga nga joxaat ñu ko ndax moom jafe-jafe vraiment bi ma expliqué bi ñuy waaj émission bi oh, man jaaxal na ma ba ban li ñuy wax nettali ci làmmiñu boroomam. Hmm? allo mi ngi mi ngi en ligne ah ñu ngi lay nuyu. maa ngi fay. Ah, da nga amoon envie partager sa expérience ak euh, ñun sanq am na loo ma expliqué loo xam ni buggoon naa nit ñi dégg ko euh, conteneur neuf conteneur yoo indi ñaata nga fay ak euh, nu mu mujjee. moi hmm. Pierre Pierre Pierre dafa mel ni ligne bi kiiwul mu defaraat position wam waaw neuf conteneurs defe naa laa jot a dégg ci li mu wax ak une semaine. waaw waaw waaw léegi ñëwaat na c'est bon. donc euh, j'ai j'ai j'ai payé à mon transitaire. Mm-hmm. Euh, la valeur de vingt cinq millions pour mu génne neuf conteneurs. Mmh. Mmh. ces neuf conteneurs là ont mis une semaine pour sortir. Mm-hmm. jour pour jour et par compte-gouttes au niveau des camions. à chaque fois il m'appelle pour me dire il y a tel camion voilà le numéro de téléphone du camion. su génne nelawoo des fois dinaa toog vingt quatre heures sa sa sa sa sa euh, euh, chauffeur bi du mën a génn port bi baat mu ne ma maa ngi rang maa ngi si rang bi après dana ma teg naa mais mënutuma génn et pendant ce temps là donc ça pour man c'est le fait du monopole de Dubaï Port parce que j'ai une seule sorte une seule entrée une seule sortie mm-hmm. Dubaï Port ayant le monopole parce que avant comment ça se passait mm-hmm. da ngay importer mm-hmm. daf circuit douane am sa bon enlevé. Hmm. soo amee sa bon enlevé nga dem si compagnie bi indi sa conteneur récupérer son produit mais maintenant ce conteneur tu es obligé de passer par Dubaï Port et même pour payer Dubaï Port qui qui est chargé qui a le monopole du débarquement et de l'embarquement te frais de débarquement ce qu'on appelle euh, frais Dubaï Port yaa ngi dem fay ko Dubaï Port mun nga daan pendant deux heures pour fay après soo fayee ba pare. ñu dem def pré-gate jox chauffeur bi jox numéro chauffeur bi. Hmm. et après tu peux la livraison de ton conteneur. li saafara mbir mi mooy revenir sur le monopole de Dubaï Port. Hmm. Dubaï Port mën na am le monopole de débarquer les conteneurs. Hmm. de les embarquer mais pas de les livrer. après euh, les compagnies récupérer le conteneurs dans leur entrepôt comme MSC faisait avant. soo amee sa camion camion bi dem eh hmm. mais comment on peut parler d'émergence où on a un logiciel de qui est très performant en moins de vingt quatre heures en moins de douze heures tu peux faire ta déclaration en une journée en une journée am sa bon une que tu as ton bon tu peux pas avoir ton contraire pourquoi parce qu'on a donné le monopole à une société hmm. et qu'est-ce que Dubaï a fait Dubaï aurait pu investir en parc Mm-hmm. pour euh, euh, euh, stocker les conteneurs, les, les décentraliser, de manière à ce que quand tu as ton bon douane, tu as ton bon compagnie, que tu puisses prendre ton produit. Et ce qui est injuste, et que je, je dénonce, moi j'ai payé à temps et en heure les droits de douane. Mm-hmm. Maintenant, du fait de Dubaï Port, mm-hmm. il y a du retard. À chaque fois, mon transfert me dit, les le temps est passé, il faut encore payer Le lendemain, il faut encore payer 200 000. Globalement, j'ai payé 2 millions en plus pour les frais de, magasinage. Pourquoi Alors que fait n'a pas. il faut que le problème qu'on qu'on puisse faire des assises du port de Dakar pour essayer de revenir sur le monopole du Dubaï On a on a comme c'est la manutention. Hmm. sëñ sëñ sëñ bi comprendre na comprendre naa xol jeex bi muy jeexee Pierre merci effectivement Papis Diaw oui oui on comprend xol bu jeex bi muy waxee. waaw hmm. la limite. mais question centrale bi par rapport au port moi je crois que monopole bi ñu wax nii moom mooy à la nekk à la base de tous les problèmes il a parfaitement raison gis nga gis nga monopole mm-hmm. fu mu am fu mu mën a am ci àdduna baaxul mm-hmm. c'est pas bon dafa lay prise dafa lay jox ay ay pouvoir ay aptitudes yoo xamante ne c'est c'est non je te jure. dama la wax sànq patriotisme lañ amul. mais mais mais Charles euh, même deux secondes rek. Ah. Mm-hmm. on n'est pas des patriotes. mais c'est dañoo sax xam nga quelqu'un disait dañoo délégué suñu sécurité même suñu économie dañ koo dañ koo. délégué dañ koo dañ koo délégué. quoi joxe quoi. mais mais mais mais xool xool euh, boo génnee mm. port. Mm. les cas que les Sénégalais vivent dama doon bakki démb xool ba ñu xoolaat benn autoroute à péage par exemple le le boss qui qui parle de il n'est quasiment pas possible de renégocier. Ah oui Bah oui, je l'ai vu. Il dit ah qu'il n'est pas possible de renégocier. Il est au Sénégal, quoi. Ça veut tout dire. man man dama bëggoon ñu yokk dara yokk dara rek par rapport ak li mu wax dama leen di leeral benn mbir bu ndaw tu sais que un transitaire bu ñëwee dem Dubaï dem ci compagnie bi mu fay ne par exemple fay naa ba lundi léegi deadline toujours c'est journée bi à huit heures par exemple tey bu fayee ba lundi lundi à huit heures la deadline bi jeex mhm. mu jox ma préguet bi man transporteur ma jox ko chauffeur bi chauffeur bi dem nekk ci rang bi ba dugg biir Dubaay nekk biir Dubaay di rang xam nga huit heures lañ bind ci papier mu leer nañ six heures demi bu ko fekkee ñu ne ko non duñ la jox conteneur parce que ñu la ko tegalee bala ngay génn kii bi huit heures day jot <laughs> te compagnie bi dañ dañ dañ naan kon lu tax ma génn seen kii dañuy fay le camion sort transfert bu xëyee day delluwaat ci compagnie bi que soit muy MSC wala CMA fay une journée encore de ses salariés demaat encore dubaat fayaat une journée de ses salariés ñëwaat joxaat euh, transporteur bi transporteur yi yebale ci camion mu toppaat le même circuit. Hmm. mais man peut-être damay laaj lu ma c'est pas loo xam ni mais pour comme il a autant de volume. pourquoi on ne travaille pas H24 conteneur bi moment bu ñu. c'est ce que c'est ce que déclare. Mais quand la douane ne travaille pas H24, ça ne sert à rien. Je veux les services concernés devraient non, pouvoir douane, travailler. Douane, scanner 18 heures les watch. Mais, mais, mais, watch boobu laa comprendre. parce que le est là. non mais mu wax am. mooy que nous sommes un candidat à l'émergence encore qu'il faut rectifier nous sommes candidats à la candidature de l'émergence. c'est pas demain la veille. xam nga pour vous dire la vérité. muy nul. souvent ñun sénégalais. malheureusement. Mhm. on est trop politique nekk ci débat yoo xam ne. ñàkk fayda yooyu mais gis nga problème port bi buñ toogoon tey que soit les politique tout le monde ba ñu waxtaan ba trouver solution. mais mais ma laaj la beneen question DP World. tey yan investissement la def pour la manutention bi mu fu bi mu ñëwee ba tey. est-ce que DP World est-ce que def na def ay investissement mais boo xoolee. projet Sénégal dama la si bex benn affaire bu ndaw malheureusement mooy da ngay ñëw gagné projet. oui commencé di fayee ko xaalis. oui di tabax. Ah. est-ce que on se fait avoir dès le début quoi. très bien parce que doo am xaalis damay ñëw lettre de confort bi ñu lay jox ngay yaakaar mhm. ah, ah, ah. damay ñëw terrain baa ngi nii vide li fi war am ci machine amu fi par exemple damay ñëw am ñaari pocle ñaari grue alors qu'il me faut dix wala vingt grue ma voilà mën naa jox marché bi. on léegi man aussi am naa beneen question par rapport aux transporteurs yi. cest dire que parce que boo xoolee pont mbaaw wi xaw ma. Ah. souvent xaw ma Fass Mbao wala xaw ma Kër Mbay Fall. Mhm. souvent dañ naan la camion yi ñoo ko mbëkk. effectivement mu wàcc. Mhm. c'est-à-dire comment se fait-il que camion def charge non réglementaire jaar fii yépp am la seule certitude mooy que mën nga mbëkk foofu ñu bàyyi la ba nga dem ba mbëkk foofu loolu benn question bi la beneen bi mooy man damay dem booy dem ci yoonu caajaay bi route